wa rahmatullahi taala wa mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloo ak seen télévision Touba Argentine TV tey nag ñu jógoon ñëw fi nga xam ne moom mooy li ñu seet si daayira Serigne Touba bi ci émission bi nga xam ne ñu ngi koy doxal muy émission nekkinu daayira yi ah, kii ngeen gis mu toog ak ñun mooy jëwrinu daara ji ñu gën koo xam ci Pape Sora Pape ñoo ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay ah te ñu fas yéene woon laa dalal ci émission bi nga xamante ne ñu ngi koy doxal muy njëriñu daayira yi kon du ñu def lu dul di la jox rek nga nuyoo ko ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan bu ko defee ñu wéyal émission bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taaliba yi nga xam ne yéen laa bokkal daayira asabul jannati maa ngi nuyu di leen ziar bi wér di nuyu gan yi nga xam ni ñoo jiitee Touba TV sëñ Gora Seck ak sëriñ Assane Ba Fall def émission yi ci daayira Argentine gépp maa ngi nuyu di leen ziar bu rëbër ci daayira Serigne bi daayira bi maanaam euh, ñi ngi ko sos euh, le 5 mai 1910 ci la daayira bi daayira bi taxaw ki ko euh, bi ñu ko ni ñu ko formé cinq peso lañ doon formé àllar bu ne def ko toolub Serigne Touba ba yàlla def tey muy cinquante peso man sëñ Cheikh Diop sëñ Kara Mbow ñoo doon wër taabri taal bu ne cinq peso ba yàlla bi fi sëñ Ibrahima Khalil mu Serigne Fallou Mbacke ñëwee yàlla na fi yàgg te ànd wér ak bépp jullit ñëw fi. Euh, ma ni ko daayira day am daayira daayira day am tur ndax kat bañ ko formé ba léegi daayira amagul amagul tur mu jox ñu le 5 mai 1900 2010 daayira ashabul jannati Touba Linière doon lañ tuddee woon boobu ba léegi ñu ngi sant Serigne Touba wér lépp liggéeyu Serigne Touba bu ne si dëkk bii maanaam bu bu daayira Linière nekkul si kanam kenn du ko féete kanam kon nag lépp nañ ko sant Serigne Touba rek ndax Serigne Touba moo ko moom moo si teg loxo. kon nag jërëjëf jëf sëñ Assane ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen dalal jàmm jërëjëf jëf kon ñu fas yéene rek commencé li nga xamante ne nii moom mooy laaj bi ah laaj bu njëkk bi moom mooy daayira bi kan moo njëkk a doon jëwriñ ji ak daayira bi nan la taxawee ak it kan moo ko njëkk a taxawal ak it li tax mbooloo mi toftal la ci seen kanam taalibe yi nekk li ñeer ñoo ma jiital te fakkastalu ma def ma waajur ma doomoo leen ndax ñi nekk Linguère di ak Sanxusto ak dëkk bi te bokk daay Linguère dañ fee ñëw ngir teral seeni i waajur ak seen doom comme que man maa leen féete wàllu mag foog ma taxaw leen wàllu waajur loolu la coono bi yëpp du loolu dama fee nekk seen waajur maag ñi nga xam ne ñoo fi nekk seen i mag dañ fay nekk dañ fee taxaw taxaw waajur looloo tax ñu teg ñu seen kanam ndax yoonu Serigne Touba maanaam li fi Serigne Touba samp rek ku mag si yoon rek yaa fay kilifa ku mag si yoon yaa fay kilifa yoonu murid looloo ko samp waaw kee te nekk Touba di sëñ Cheikh Mat la yàlla na fi yàgg tamit dafa mag si yoonu murit moo tax muy xalifam sëriñ Touba loolu tax ñu teg ma fi am na ñoo xam ne ëpp ma leen xam-xam ëpp ma leen àll waaye xëy na li ma leen féetee ab ay at moo tax ñu teg ma fi ñun dañuy doxal ni sëriñ Touba doon doxal ak ñi mu àndaloon ni ñuy doxal rek noonu la ñuy dox ndax daayira daayira bi sëriñ Touba la boo xoolee ñun ñu bokk daayira bi yëpp kenn ku ne am na foo sukk jébbul waaye dañoo sos daayira bi def ko àll bay sëriñ Touba muy daayira bi sëriñ Touba fu mën a ñëw du ñu jàll jël kees sëriñ Touba dañuy làmb suñu ñàkk jox la àddiya kees sëriñ Touba ak at mu ne sëñ baara ba ba sëñ Cheikh matali at mu ne du jékk at mu ne addi ji day dem waaw foofu daal la xam ne noonu ko jërëjëf sëriñ Pape ci tontu bu am solo bi kon du ñu def lu dul di la ngeen koy taxawalee nan ngeen di daayira fii daayira ni ñu koy taxawalee maanaam altine la ñuy commencé huit heures mi ngi jeex euh, onze heures onze heures et demie maanaam liñ commencé mooy dinañ jàng alxuraanu karim kenn kon xam ne ku tedd ki muy sëriñ Touba alxuraan moom yëmalawu koon ak lenn waaw bu ñu jàngee alxuraan ba kaamil bi wàcc dinañ jàng xasida Serigne Touba yi suñ jàngee xasida Serigne Touba yi ba xasida yi pare dinañ sikkarulaay suñ sikkarulaay ba pare xéewlu suñ xéewloo ñaanalante yi wekku daayira bi noonu lay demee. ñu ngi dégg léegi ci say kàddu eh, nga ne daayira bi yow yaa ko taxawal wëlbatiku doon jëwrin ji ah, ci noonu nga doone jëwrin ji ndax mbooloo mi ñoo la fi teg wala dañoo jekkee-jekki nga taxawal daayira bi rek jiite mbooloo mi. tey jii li ma la waxoon sama commencement bi rek mbooloo ëpp ma leen xam-xam leen aliwo waaw xëy na dañoo gis ñu doy ma ñu teg ma bis bu ma demee ba doyatuma leen it ni ma doone woon jaamarti daayira bi noonu laay gën a tege sama tànk te di la xamal daayira bi Linière bi lépp liggéeyu Serigne Touba bi ñu liggéey fii si dëkk bi si xalaatu Linière la jógee muy man ndax xel mu am waa Linière ñoo ma ko jox bu dee marche bii ñu doxee Argentine def marche su Argentine xamee marche dem permission police ñaan permission si sama xalaat la jóge ba ma Linière yeba daayira Linière yebalee capital réunion laa la lañ ko xalaat ma wax leen ko ba sëñ Yankoba yebalee at mi fi sëñ Mamour di ñëw ñu ñaan permission dañu ko may mars ba mars ba ren dañoo dem koor ba def ko fédération bii ñu wax si sunu xalaat la jóge ñu Linguère si sunu xalaat la jóge bi ma Linguère yebalee capital ma dem réunion laa ni leen euh, laa laaj Talla Sall ñaata daayira moo fi ne daayira mu fukki daayira Talla Sall ni ma Argentine mi ngi si fukki daayira ak ñeent man ni ko nañ taxawal fédération suñ taxawal fédération sag la cinq daayira bu na indi 2000 muy 28000 28000 fu euh, fukki at fukki weer yi ak ñaar ko xaaj bari la ba yàlla def loolu taxawuñu ba mu am ñeenti at sëñ Cheikh Mat lay daal ni la Pape Sodo kat la mu xalaatoon lu jub la ci liggéey Serigne Touba daal woote réunion kër bu Bëccam ba ko woote ñëpp ànd si bi taxaw bu dee màggalu Daaru Musi maam Thierno Birahim dama doon xool bu màggalu Daaru Musi ñëwee dëkk bi li muy rëy kenn du fi wàcce kaamil def nañ ko fii ñaari at ci la waa Daaru Musi soo ko samp daayira bi ñu sampee xam ni kat comme que ñoom waa Daaru Musi ñooñu gën a jege ñu bàyyi ko ak ñoom màgg nañ fii màggalu Daaru Musi ñaari at bu dee kër sëñ Touba fii si capital li muy rëy rëy rëy ñun ñoo fi jëkk waxaale kër ba jox say avance muy fii ñuy defee daayira borom daf ni woon daf koy jaay ñu joxe si avance boobaa léegi mat na ñeenti at bu bu këyit yi juboon problème mu këyit moo ñu téye notaire bi xool nañ ko këyit yi walaab këyit dañ ko laaj bu ñu ko joxoon ba nëgëri wecceeku nañ ko muy kër gi bañ fi joxee avance ak léegi mat na ñeenti at kon damaa bëgg ñu xam lépp du sunu njàmbaar du sunu góor lépp nañ ko gërëme Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ñu teg loxo lépp yoonu Serigne Touba lépp lu muy def fii si capital daal maanaam li ñeera ko xalaat wala moo si jiitu kon nag sant naa ko sëñ Mbàkke Madina bu wér muy sama wasila kon du ñu def lu dul di la laaj ci fédération boobu nga xam ne daanaka ci sa xalaat la jógee ndax fédération boobu noonu am nga ci post mbooloo mi dama leen di jiite seen xalaat laay doxee nit bul jiite mbooloo yaakaar ne yaa xam-xam mbooloo wala yaa leen yaa leen ëpp daraja gën mbooloo mi seen xalaat laa leen laay doxee wax dëgg yàlla man ba ñu wootee am na ñeent ñu jóg ni jëwriñu Linière ni muy doxale daayira doy na ma ndax Linière benn daayira gën koo dox sa dëkk bi yow yaa nga fa woon. ma leen ah man de ma sañoon comme que maa ngi jëm ma am na ñu ma fi gën a nekk xale nañ leen jiital ba sëñ ba ñu cité cité sëñ Yankob muy jëwriñ euh, jonn topp si euh, Bamba topp si man Mam a Amar topp si euh, sëñ Cheikh Mati lay ni buñ tëba bu ñu ma étagee ba ñu ñu fal biro ba ñu fal biro sa été lañ ko fare ni ma conseil de Yankob ba moom lañ ma def te man le kara ñu def ko trésorier yu amul lu muy lu muy liggéey lu Kara yëg man mii daanaka kon du ma si dara waaye ñun liggéey Serigne Touba dong dong dong dong moo ñor ba fédération bi taxee ba léegi weer wu ne deux suñu 2000 day dem lu fédération bi lu fédération bi taxaw laajte suñu alal day dem weer yi ñu génn moom lañ joxewul 2000 te problème moo am dafa am ku am ngànt problème si daayira bi lañ waroon a joxe fédération ñu jël si kees gi dimbali ko ma nga Sénégal yónnee ko lii moo tax joxewuñu weer te bu soobee Serigne Touba suñu suñu waxtaanee suñu luñ mën a fexe ba récupérer ba récupérer weer wee paase at bii nañ ko def ndax ñu liggéey Serigne Touba ñaan nañ ñun waa Linière kenn duñ ci man bokk si fédération ñàkk si bokk la ñemale barkeb Serigne si des ginnaaw ba mukk waaw ba fédération bi taxee ba léegi amul kuñ ci man muy màggal Touba gi fi paase amul lépp amul kuñ yées desuñu si ginnaaw ba si at yi ji paase te ñun bi ñu yóbbu jébale at yi euh, bee pa bu daaw bi ak bu ren bi ak bi ko fédération bu wootee 6 mois la tool te daayira yu bari mënuñu kon xam nga loolu Pastef dong la kon daal yàlla na Serigne Touba gën a yàggal ànd bi rek sëñ Assane. di bu baax a baax it eh, la jaajëf ci kàddu yu am solo yi nga xam ne kàddu yu leeral la eh, parce que ku nekk tey ci réew mi tey ah, bëgg na bu dara jibatee maanaam mu am ci lu ko leer bu ko defee day ub gémmiñu waxkat yi ah, ñi nga xam ne ñooy waxkat yi it eh, li tax ñuy wax mooy li lëndëm ci seeni xel ah, kon sëñ Pape ñi ngi dégg sànq ci sa biiri kàddu nga ne conseil lañ la defoon ndax ci biir conseil boobu ndax yaa ngi jokkoo ko jëwriñ yankoo ba eh, di ko conseiller 1977 laa jéblu sëñ Mbàkke Madina Bayti ñi jiite fédération boobu bu ñu juddoot ay xale yu ndaw lañu bu dee dañoo taxaw fédération ah li code bi wax waratumaa doon conseil sëñ yàq bu conseil fédération bi laa war a doon man jëkkumaa bokk mbooloo Argentine huit ba may ne Sénégal huit régions Sénégal yi transporteurs yi huit régions yi ah suñ jiite woon fédération transporteurs ci laa bokkoon ci laa bokkoon ñun nekk conseiller wala ñu nekk jëwri teew ñëw liggéey Serigne tubaa ñun liggéey Serigne Touba daayira bi li ma la wax bis bu ne bokk ko sëñ Mbàkke Mad mi sëñ Serigne ko sëñ Fall moom kenn moom ko sëñ Touba ko ñun lépp lu ñu war si dëkk ngir liggéeyu Serigne Touba dañ say ànd ñun ñu bokk bureau ñu bokk fédération lépp lañ yemal ñun daal liggéey Serigne Touba moo ñor ñaanuma yàlla daayira Linière bi ñu woote dara capital ngir jëmi Serigne Touba ñu des si ginnaaw du am du am ñun jiiteeg ñàkk jiite lañ yemale dañoo fekk Linière di dox fédération daa fekk Linière di daw doxul di daw di daw xam nga sëñ Baara ba sëñ ba sëñ Cheikh Matale mosoo tardé addiya kooku nañ ko sant Serigne Touba bu wér surtout Serigne Touba bu ñëw nga teral ko nañ ko sant Serigne Touba bu wér a wér lu boo si mënul kenn du la man nañ ko sant Serigne Touba nañ ko sant Serigne Touba bu wér ñun Serigne Touba moo ñu teg loxo gis nga ku ñu puus ñu dem ku ñu puus ñu dem barkab sëñ ma Mar nga daayira bi bala nga war a xam ne man yoruma ko ma génn su ma génnee sëñ Touba moo fi indi keneen ku ma pëseef su nga booloo ku ya mboolam sëñ Touba ku yaakaar yaa koy doxal ndax nga sa bopp sëñ Touba koy doxal boppam sëñ Touba moo koy doxal boppam Assane ñun kër gi bañ koy waxaale fédération taxawul est-ce que nit mu saa taxaw si mbooloo wax ko ah xalaat bi euh, bi ma joxee si Argentine gépp mars bi fédération màggal daaru musi gàmmu gàmmu bu ko murid defee Argentine fii la jëkke ñun ñoo fi jëkk a def gàmmu daayira Liniers ba daayira Liniers moo fi jëkk a woote gàmmu gàmmu am murid de waxuma am murid Liniers ko fi jëkk a woote te buus ñoo taxaw wenn wax Assane wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa wax sa du wàññi sa mbaax du wàññi sa mbaax Cheikh Issa Dieng su musaa dem fenn su waxtaan sëñ Modou Xabaan da nga naan sëñ Modou Xabaan sëriñam la su suñu Modou Xaabaan Moussa dem fenn jamonoom su waxtaan sëñ Issa Diène da nga naan sëñ Issa Diène sëriñam la ndax joxante war ma ak bëggante gi bëgg te kenn ku ne da ngaa yaakaar sa morom moo la gën a bëgg sëriñ Tuubaa loolu taxoon nga bëgg ko man taalib ma seen muy dem damay yaakaar man Pape Soda sabab sëriñ nga man noonu laa jàppe bu murit du ma jàppe maa la mag du la jàppe ma ñee doomu aadama fi ñu toll ak taalib bi dong laa ñee doomu aadama barke sëriñ Tuubaa kon nag yàlla nañ ko sëriñ tubaa defal tey tey yéenante jàmm tey waxante jàmm gis nga murit loo bëgg-bëgg sëriñ Tuubaa te yéenoo sa morom jàmm doo am jàmm waaw jàmm jaaku jàmm ji sëriñ Touba ko moom te moo ñu moom nañ leen te jàmm yàlla def xéewal si réew barkab Serigne Touba. kon jëwriñ Pape eh, foofu nga xamante ne ni moom lañu ñu eh, sofe rek fa la ñuy continuer. Mhm. muy li nga xamante ne ni moom mooy kër gi fii te sànq tudd nga ko muy mhm. kër sëñ Touba gi. Mhm. yaa ngi ñu doon xamal ne yéen a ngi ko doon waaj jënd waaw njënd moomu lan moo ko gàllankoor ba tax boobu léegi fàggu leen. njënd boobu li ko gàllankoor su ba nit mooy dogal waaye nit mooy sabal waaye borom mooy dogal maanaam bi ñu demee ba si biir soxna si ku baax la muy soxna boroom kër gi moo ko dox bi ko ndaw si ne da koy jaay bañ ba ñu waaju koo jënd ba jox ko awance bi ñu demee si notaire bi notaire bi laaj kayitu kër gi ba léegi mënagu koo joxe loolu moo ko gàll ko ni kon ba nëgë ni boobaa léegi mën na ñeenti at kon ba léegi kër gi moom kër sañ Tuubaa la kon ba léegi moom kër kër sañ Tuubaa la sëñ Asan li ma ko waxee léegi rek gis nga sëñ Yankob bi nga xam ne mooy jëwriñu Sëriñ tubaa dama koy sant di ko gër ak moom sama ñoog sëñ Bàmba ay jàmbaar dëgg lañu man nit duma ma nungu sax mbaax waaye nag nañ wax mbaaxu waay ndax mos ngaa toog fenn si dëkk bi ñuy wax daayira li ngeen moo fi def wala moo fi keneen yi mosu ko am dama lay laaj mos mos na am ah ah jeex na kon ñun sëñ tubaa tax ñuy liggéey te kër gi bu yaagoon wecci ko Linière moom ko Pape Soda moomu ko kenn euh, Cheikh Ndour moomu ko Matar Gueye moomu ko sëñ Touba ko moom sëñ Touba lañ koy jébbal ba ñu ko waxee dañoo woo jëwrinu sëñ dañoo woo jëwrinu sëñ Saale muy Bamba Ñang mu ñëw ñu toog maire bi toog ñu ni ko kër gi kat comme que fi bokk daayira borom nee daf koy jaay ndax bëgguñu ndax bëgguñu leneen ëllëg comme que ñoo fi bokk daayira ñoo fi bokk yem bañ waxtaanee ba jubal la ñuy avance ñu joxe ñu joxe ñu avance borom kër gi ba léegi mat na ñeenti at bu sutti woon kon yaakaar ñeenti at li ñu fi jëkkër am kër Sëriñ Tuubaa <coughs> kon yéen a boole woon yéen ak daayira Serigne Saliou ngeen joxe seen avance ñu joxe sunu avance. yéen ak daayira Serigne waaw ndax ñoo fi def daayira lépp Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saliou mooy Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mooy Sëriñ Saliou waaw kenn mu leen a xaajale. waaw ndax mooy liñ xaadati lu ko jóor man ma Saliou si la tey bi wala jës bi wala nii si la kon loolu mooy li wër kon jërëjëfati jëwriñ Pape Sora kon fi ñuy tàggatoo ak yow mooy li nga xamante ne nii Euh, mooy Touba ca kanam gi. Mhm. ndax liggéey boobu noonu kan moo ko yëkkati teg ko ci sa loxo. sant naa yàlla yonent ak Serigne Touba ak sëñ Mbàkke Madi muy sama la ñun duñ doxe xelu kenn ñun waa daayira li ñaar ndax Serigne Touba ba Serigne Touba bi ñu sukk jëb may nañ sunu xelu bopp duñ sukkandiku si kenn. Touba sa kanam ñoo ko jëkk a kere fii si Argentine ci Argentine liggéey nañ ko ñeenti weer ah jëwriñ Argentine yi soog si ko ñeenti weer moo tax lu ma wax dama koy waxaat bañ ma nee andi sa liggéey la ma leen duma ko def duma liggéey ñeenti weer ngeen sos tey ngeen bëgg andi leen liggéey duma ko def bañ demee ba sëñ Mot Seck mi fi jëwriñ di yebal ba mu ñëwee waxtaan ak sëñ Yankoba sëñ Yankoba moo fi Serigne Touba foog ma jox ko cër ba mu wax ma dama ko de yaa fi Serigne Touba foog ma jox la sa cër ñun li ñu liggéey bi ma ko waxee sa suba sa mu woo ni ma kat bi ma waxtaan ak sëñ Mot Seck sëñ Mot Seck dani ma comme que yéen yéen ko commencé nañ leen bàyyi ak liggéey bi man nungu bañ maa bañoon sax ma ni sëñ Yankoba ba léegi su ma sañu daal li liggéey waa daayira wax daal li liggéey dañ la ko jébal mu ne du ko def comme que yéen yéen a commencé rek baal sëñ Pape Sow nungul ma loolu ma jox la ko ma ñëw waxtaan ak waa daayira bi ma jël Touba sa kanam dénk ko sëñ Cheikh Ndiaye ku si am positif moo ma si man ma nga ne moo ma si man su ma paree moom loolu moom wàllam la léegi euh, muy liggéey liggéey bu rëy boobu ba gis ngeen somme bi ñu si dugal ñoo waa Argentine dama ni la daayib linière suñ tubaa moo ñu jàpp duñ doxee si xelu kenn ñun suñu xel la ñu demee suñ tubaa may nañu loolu ak pas-pas bi ak bopp bi ak xalaat ak ànd bi daayib ba mu sosoo ba léegi amul ku a ŋaayo amul amul lu problème am am nañ ànd ak suñu fayda ànd suñu taal bi ànd ak dal ba lijjanti problème bo cas social day am fii si biir daayib doon doon xaay bu bari daayir bi ñoo ko lijjanti duñ leen laajal daayir nekk arsan ba xam daayir linière naa dem si benn daayir te tàllal loxo pour social musul am ñoo koy amul sunu bopp jëngu suñu bopp ngir jëmmi Serigne Touba ba Serigne faj social boobu boole si leen amul benn daayira mu sa xewle ñun benn daayira mu su jox un peso un peso lineer gi un bu mu sa jox lineer un peso na ko wax te daayira bu am xew-xewu Serigne Touba fii lineer na jël si keesam jox la àddi Serigne Touba asal ni ñuy doxe si dëkk amul daayira bu koy doxee damaa bëgg ñuy wax wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara lii sëriñ tubaal du ñun du ñun ñii de Serigne Touba ko téyel boppam. buñ si jàppee dina dem buñ si jàppee dina dem barkab sëñ Mbàkke mat na sama su ku baax ba ma ñaan bay dafa am lu ma waxoon. Mhm. barkab sëñ Mbàkke mat waaw. ak sëñ Pape gis nañ ne bu njëkk sax daanaka ànd bi nga xam ne moo am ni yow ak jëwriñ nekk ci réew mi demee wutoon noonu. Mhm. léegi nag xëy na suñ borom boole na leen ànd boobu lan moo ko waral. sëñ Assane man musuma bañ bañ a ànd. Mhm. musuma bi sëriñ Tuubaa moom nee naa du sama sëriñ. bëgguma aw yoon woo xam ne rek sëriñ tubaa daawu ko doxee wala ñi ànd ak moom daawuñu ko doxe man yoon wu may dox rek sëriñ Touba wala Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall wala Cheikh Issa Diène daanañ ko doxee yoon woowu laay teg sama dox te kàddu sëñ Abdou Lahad man du ma xëy ba jant bi sa te déglu ma ko benn baat sëñ Abdou Lahad Assane day kaamil gis nga jëwriñ di daayira yëpp bu ñu doon déglu kàddu sëñ Abdou Lahad duñ juum duñ juum xoolal ku toll doomi sëñ su euh, sëñ Moussa sëñ euh, euh, sëñ Moustapha Bassirou mi su demee ba may tëyal satala sëñ Touba tax su ma waral sëñ Touba ginnaaw ngeen war ma ginnaaw kon xam nga kooku dañoo dañ ne dañ ñun ñu delluwaat gëm sëñ Touba doomu sëriñ Touba bu demee bay wax loolu mbir mi sëriñ tubaa doo nga fi ba fi ñu toll fédération bi bu ñu aw si lu sëriñ tubaa bëgg rek du ma faw moo tax du ma jubóog ñoom nañu aw si li sëriñ Touba bëgg Cheikh sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ xamul woon fédération maam Cheikh Issa Diène xamul woon fédération sëñ Saliou xamul woon fédération ñun ñoo ko créé ñun taalibe daayira lañ fi bàyyi yoonu daayira nga xam ne moom la Serigne Touba sopp moom la Serigne bu ko fédération bu awoodo du ma jubóog ñoom ma liggéey Serigne Touba dong dong dong moo ma ñor du leneen amul aw ma man Serigne Touba faral bu kenn bañ a faral Linguère man Serigne Touba laa faral ñun waa Linguère Serigne Touba lañ faral Serigne Touba dong moo mën a faral daayira bi li ma la wax rek du man du keneen Serigne Touba ko yorul boppam musu maa bañ a ànd ak jëwriñ musul am maa mag fu fuñ ma musa woo ma wuyu leen man maa leen mag damay wàcc sama fu ñu ma woo ma dem wuy ji leen fu ñu ma woo ma wuy ji leen ndax lan Sëriñ Tuubaa bu wàccul woon boppam ñun duñ si jariñu dafa wàcce boppam def boppam nit ñu mën see jariñu yor jëmmi nit ñu mën see jariñu di wax waxi nit ñu mën see jariñu di xool xool nit ñu mën see jariñu kon ñun ñu nga xam ne ay sagari taalibe lañu ñu wàcce suñu bopp duñu dara mbaxana bu lii bu di sol kenn du ma ko teg si bopp mbaxana bu di sol kenn du ko teg si bopp sañu asal nañ leen wóolu Serigne Touba te doylu ko te bàyyi Serigne Touba ak di tudd Serigne Touba tudd keneen loolu moo ñu tardel waaye ñoom bu ñu ko wóoloon doylu ko amul lu ñu mënalul man de Serigne Touba dongu laa wóolu Serigne Touba dongu laa gëm daayira bu nekk Serigne Touba daal la Serigne tubaa digle ak la waa kër Serigne Touba lañ doon def ñu koy def ma ànd yow soo ko noppee rek ma téye sama bopp man yoonu Serigne Touba yi duma ma ko jéem a xàjjal mukk mukk si àdduna mukk si yarawuñ ma ko xaw ma ko te miinu ma ko lépp lu liggéeyal jëmale kanam liggéey Serigne Touba nag maa sax maa nga waaye man du ma par parloo du ma da liggéey Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp a maase fii ñun ñëpp ki am ñeenti at ak man mi am fanweer at ñooyam ñun ñëpp a maase liggéey Sëriñ Tuubaa nañu wàcce suñu bopp te gëm Sëriñ Tuubaa te wóolu ko buñ lay raamal Sëriñ Tuubaa tax oto bu rafet booy dawal Sëriñ Tuubaa tax say poos bu disee xaalis Sëriñ Tuubaa tax kon nag sëñ bi nañ wàcce suñu bopp tey waxante lu rafet su ma gisee Assane Assane na ma gënal sama bopp bu fa Assane newul lu may wax sama bopp nay loolu leer du wax Assane lu bon ab taalib du waxal ba lu ñaaw nañ leen rafetlante nañ leen rafetal jukko yi te yeneen te jàmm man ba ma ba yàlla sàkk asan xaw ma yëguma ko wërsëgu asan mënu ma si dara mënu ma si dara nañ leen te jàmm te ñaan Serigne Touba benn ñu jërëjëf jëwrinu Serigne Touba fii ci Lignas Euh, tey moom lan ñëwoon seet si ci li nga xam ne mooy émission nekkinu daayira yi te foog naa day émission boo xam ne day leeral li nga xamante ne ni moom mooy li nga xam ne moo lëndëm ci dëkk bi ngir jaam ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi it seen bopp mën cee ibbeku ba waxkat yi it seen gémmiñ mën a tëju ndax boo déggee leeral yu am solo yi nga xam ne leeral na ko fi nga xam ne nit ku dëggu la du nit koo xamante ne ni dara dana nekk ci dënnam wala ci xolam mu di ko denc kon sëñ papa ñu ngi lay ziar di la jaajëfal kon du ñu def lu di jox ki nga xamante ni moom mooy Serigne Modou nduur euh, Cheikh Ndour euh, kàddu yi bu ko defee moom it euh, comme mooy parte parole daayira bi wala moo topp ci yow waaw kon bu ko defee ñu ñu jox Serigne Cheikh Ndour ñu waxtaan ak moom tuuti rek kon mbokk yi ba tey ñu ngi wéyal li nga xam ne moom mooy émission bi muy nekkinu daayira yi ñu jàkkaarloo ko jëwrin Cheikh nduur jëwrin Cheikh nduur ñoo ngi lay jaare ba mu sasoog léegi yow yaa ngi ci biir daayira bi. maanaam comme ni ko sëriñ ñi ko jawriñ sëriñ Ba waxee noonu rek la demee e, bañ koy sos boobu sax maanaam mën nañ ni tuddagul woon daayira parce que ndax dañoo toog fii ba nekk fi ab lim ci dëkk bi mais boobu amuñu benn affaire benn caisse sociale wala dara léegi ñu xalaat ci ni laa ginnaaw mën nañ fi ab lim fii ci dëkk bi fii ci Linière. te tolof tolof yu bari na des fois ñu jël say bagage des fois nga am ay tolof tolof ñuy laaj suñ biir di ko di ko di ko di ko di ko jàppale kii tolof tolof bi daal ñu xalaat ni léegi nañu def soci association maanaam léegi nañ def chaque alal bu jot kenn ku nekk ñëw sa taabal nga joxe cinq pesos boobu nag cinq pesos am na wala tuuti bokk wut nag léegi waaw léegi sëñ paam mi ak Modou Kara ak Cheikh Diop alal bu nekk kenn ku ne ñu fekk fa nga lal nga joxe cinq pesos mais ba léegi boobu nekkagul woon daayira ah, saaru association la woon ñu mm-hmm. léegi nañ ko def benn kees pour en mm-hmm. problème bu man de am ñu man cee dimbale mm-hmm. suñu mbokk moom problème bi la wax noonu la juddoo bi ñu doxalee ba ca kanam nag léegi ñu xuus ni ginnaaw nga xamante ni ñi doxal affaire association bi ñu ci ëpp association bi ñu ci ëpp ay taalibe bi murid lañ ñuy léegi nañ ko jëlañ ko changé def ko daayira mun door a nekk daayira bi ñu ko defee dayra léegi naaw cinq pesos lañu doon laaj social social social bi léegi def ko daayira léegi daayira bi 10 pesos social 5 su ma juumalee yaakaar naa sax daayira la woon. Mhm. daayira bi 5 10 euh, social bi 5 pesos loolu noonu la daara bi juddoo ba léegi léegi ñu def ko daayira sëñ Touba mais amul tur bi ñu commencé doxal loolu nag ba sëñ Ibrahima Khalil ñëw jëla ko sëñ Pape sàkkoo ci moom turu daayira bi. ni ko dañoo taxawal fi ab daayira bëggoon nga jox ñu tur ci la sëñ Ibrahima Khalil joxe tur Ashabul Janna waaw. kon turu daayira bi ci moo ko joxe. ci la jógee waaw ñun daal sa sa lañ commencé woon ba mu yàgg ñu mujj ko def ko daayira daayira sëriñ Touba. bi loolu taxawee nag bañ commencé doxal daayira sëñ Touba ci la sëñ Xalil ñëw tombé nganu sëñ Xalil ñëw seet sañu fii Linière fii fii boobu fii lañ ko doon daal fii ñu toog ci lañ sàkko ci moom mu joxe ñu tur ci la sëñ Xalil joxe tur asxaabul janna waaw ci gàttal daal daayira bi foofu la ci li ma fekkee yaakaar naa bi ñu gis ba léegi foofu ci la maa ngi fi noonu la jaare foofu la foofu la juddoo waaw daayira bi comme ci ndimbal ngeen ko sasee ndax ndimbal loolu mi ngi dox ba léegi tey la raw nan ngeen di dimbalantee ci seen biir. xanaa que kenn kenn ku nekk rek problème boo mën di am muy problème boo mën di am rek daanaka sax duñu xaar ay social ak i kees sëñ Paa ba ngeen nii dañ naan kenn ku ne la joxe nangam ñu daal di ci ñu daal di daal di koy def ci fiñ toog nii lañ koy lañ koy toppatoo teg koy solo loxo waaw solidarité bi moom moom noonu la taxawee moom amul sax xaar ay social ak yooyu moom problème bu mën di am. dañuy daal di wax ci mbooloo mi di suñ mbokkum taal bi mii kat am na problème tel problème tel ne ku ne indi nangam ñu dimbale ko te yàlla tax mbokk taal bi tam na moom buñ ko xasee loolu xasee am moom nañ ko ni ko jar waxee lañ koy defee waaw beneen ba itam daayira sëñ Tuubaa bi bi ñu koy doxal nii itam ba léegi nii fa ma xew nii ñu ngi joxe àddee Seex Maam Serap Fall am nañ keesu Maam Serap Fall comme ni ñu amee keesu sëñ Tuubaa daayira bu jot. bu ñu joxee addee sëñ Touba bi dañuy joxe addee maam Rafaal man maa yor keesu maam Seex Rafaal waaw ni ñuy joxe addee moom euh, sëriñ Touba noonu la ñuy joxe addee addee maam Seex Rafaal waaw ñaar yëpp lañ boole di ko doxal waaw. waaw ba tey kon euh, fi ñuy fi ñu lay laaj rek mooy ci jëwriñu daayira bi ndax euh, jëwriñ ji maanaam moom mooy jékkee jékki wax ngeen ànd ci wala dafa am ñoo xam ne dañuy déggoo ci seen biir rek ngeen tënk. lépp maanaam lépp lu mën a doon moom jëwriñ moom ñëpp ànd ci mu jiite mu jiite daayira bi waaw moom mbooloo mi bo jëwriñ moom mbooloo mee ko tànnal seen bopp mbooloo mee ko tànnal seen bopp doyloo ko. dama ne ndax moom mooy décidé wax moom mooy rek. yéen ngeen ànd ci wala mbooloo mee ko jëwriñ am na ñoo xam dem sax ba di ko sikk ci loolu. dañuy dem sax ba di ko sikk ci jëwriñ lu tax yow doo jóg jël jël décision. doo bàyyi ma doo bàyyi moo loolu noonu day na bëri ko sëkk ci loolu ko naan ko jël yow tax doo jël rek tax doo ñëw rek jël décision mais nangu bi def loolu toujours day bëgg a wu ci ci waa daayira bi mhm. mbooloo mi bala muy bala mu jël benn décision mbooloo mi lay laaj lan mooy seen xalaat ah nangam de am na nangam la ñu def war nañoo def nangam programme sangam am na lan mooy seen xalaat kenn ku ne am na ci ëpp sax da jaar seen tur diwlu ci sa xalaat diwlu ci sa xalaat diwlu sa xalaat waaw moom moom noonu lay doxee moom du jël benn yoon décision boppam lépp lu muy def lu nekk même bu demee capital réunion ba bañ lépp lu ñu tere daanaka xaaral moo ne sama mbooloo sama waaw man yàlla rek tax may wax. Ah. kon daal yow ci sa gis-gis mooy jëwriñ daal neex naa moom ku neex a ku neex a jiital la daal. waaw gis-gis. li ma la mën wax kay moom man kay mën naa tontuwaale mbooloo mi waaw baat bi moom benn la wax dëgg yàlla. jërëjëf Serigne Cheikh kon ñu ngi lay siyaare bu baax. kon eh, beneen laaj bi ñu lay laaj ndax mooy ku bokkul ci daayira bi ndax da ngeen ko dimbale. bokkul taalibe bi muñ yëg sa problème rek taxaw nañ taxaw nañ ci waaw bokkum taalibe muy ñëw yëg sa problème rek taxaw fois nit day jóge feneen ñëw ne ah, dafa suñu bokkum taalibe bu mujj bi bu mujj bi am na ku ñëw ci fi ñuy fii ci Linière benn samedi di dafa suñu bokkum taalibe mu war a opérer ca bu fi ma waxee ni waxul tur tur waay tur gi ñu opéré. Mm-hmm. jox ko ba mu dajale ab lim fii ci Linière te ba léegi ñun ñi dajale ndimbal loolu. Mm-hmm. xamuñu ki ñu opéré kan la waaye ñëw nañ suñu benn mbokk mbokkum taalibe kat moo nekk ci Sénégal ñu war ko opéré muy sàkku ndimbal pour leeral leen ne la solidarité bi moom yamul ci daayira beeg mbokk daayira bi yamul ci tijaan beeg murid bi xaadir bi képp ku ni sénégalais bu amee jafe-jafe buñ lépp luñ ci mën taxaw dañ ko taxaw buñ ko yëgee moom loolu la ñuy doxee. waaw gis nañ ne daayira bi macha allah daayira bu mag la daayira bi ñaata membre ñoo nekk ci biir daayira bi. ñaata membre ah non jàpp ma lim bi jàpp ma lim. loolu ko ah, loolu moom jàpp keesu daayira gi ngeen mujjee yónnee gi ngeen mujjee yóbbu Sénégal addee ji somme bi ñaata la tolloon. un million la tegoon na. un million yu toftal tuuti waaw. mbooloo mi ñoo ko dajale. ñoo ko dajale mooy àll bay àll kii yi ñuy joxe rek àll yi joxe par altine rek àll bay joxe moom moom la ñu dajale jox yóbbu ko. ak sa jëwriñ Seex kon du ñu def lu dul waxtuwaan yi ñuy xocc ñuy tàggatoo gi yéen ci mm-hmm. émission bi nga xam ne mooy njëriñu daayira yi mm-hmm. ah, tey ñu ñëwoon fii ci Lignas daayira Serigne Touba bi nga xam ne moom moo fi nekkoon mm-hmm. eh, moom moo fi nekk ñu ñëw seetsi ko ci émission bi nga xam ne mooy njëriñu daayira yi kon nag du def lu dul di tàggatoo gi yéen di leen wax ne